comme ni ko sëriñ Thioro Mbacké waxee rek ci turu sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacké ibnu sëriñ si sëriñ si Matar Mbacké nga xam ne tey moo waral ñu def euh, réunion réunion bu mel nii mooy CRD spécial bu nga xam ne moo préparer màggalu Mbacké Mbacké Kadior nga xam mi ngi war am le 24 janvier 2020 euh, comme ni ko su su su defee rek ci benn ci ab CLD bi mu def. préfet da ko ci ab CRD tey ma doon bisu CRD bi bi nga xam ne moo waroon vraiment tënk li xam ne moo ñu defal ci wàllu département Kébémer mu ñëw fii ci région bi nga xam ne euh, ñoo war a def liggéey bi ñu xool aussi ni ñu ciy euh, waxee ni koy waxee ni ñu koy defee ba lépp aussi tamit mën a mën a mën a àndoo vraiment tamit ñun aussi suñu xel dana loolu parce que engagement yi nga xam ne daal vraiment service de l'État ku nekk ak wàll bi nga fee jël nga ko incha ñun suñu loolu mooy fexe ba loolu aussi mën a am ma ma mën a am parce que dem damay wàllu engagement ci CRD moom ñaar la dafa am engagement yoo xam ne ñun ñoo ko war a jël ñun mu dépendre ci ci région bi ak département bi loolu incha allah moom amuñu ci amuñu ci benn amuñu ci benn si si si sànq maintenant am na yoo xam ne aussi peut-être tënkuwul ci tënkuwul ci ñun mais mu ngi tënku tamit au niveau au niveau au niveau national te loolu aussi su liggéey mooy. vraiment daal kilifa yi li nga xam ne tamit moo tënk ci ñoom ñu xool seen ni ngi koy ni ngi koy ni sama xel dal na ci wàll woowu ne lépp li nga xam ne jël nga comme engagement dañuy xool seen ni ngi koy mën a mën a saafara en tout ñu daal suñu ambition wala ba suñu suñu suñu mooy lépp daal li fi def defoon ba léegi waaw ñu ni ñu koy yokkee ah loolu daal mooy mooy suñu bëgg-bëgg yàlla nag moo mooy mayee waaye li liggéey mooy xool bi nga xam ne vraiment jot nga def fi tey di tamit nuyu su mbooloo sëñ si fi toog jóge Touba jóge Dakar jóge jóge fépp ñëw bàyyi seen yitte ñëw fekk bés bu mel ni muy bés bu am bu am solo loolu aussi vraiment gis nañ tamit taxawaay bi tamit aussi dinañ gën a ñaax tamit ñu mën a liggéey oh, comme tamit nu nuñ ko nu nu ko waree te booy xool tamit màggal bi lu mu laaj ci wàllu karange wàllu ndox wàllu courant wàllu euh, euh, euh, téléphone wala tey tamit dund wala te tamit wér yaram wér yaram yàlla baax na daal vraiment lépp daal dinañ xool te ni ko mën a saafara pour que aussi mën a ñëw ci jàmm tamit ñu am ci tamit ndam parce que ndam sëñ Tuubaa moom mooy ndam sa Sénégal mm. loolu moo xam ne bu baax a baax dèjà tamit loolu dinañ ci dinañ ci liggéey bu bu baax a baax